kon baax na ci buy jamono yi demee nii ñu mën a wax lu baax li mu fi def Masalikul Jinaan bële bañ koy tabax xaalis bu tekk la ñu dugg addiya te kenn wax ko kooku nag tey jii moom moo ñëw jàppale la jeunesse lii mu def nii tey ñu ngi ko baaxoo ci final waaye tey quart de finale la mais moom xaarul loolu mu ne day jàppale la jeunesse de Touba Mbacké candidat la boo xam ne il suscite l'espoir parce que le club pour cent préférence nationale ku amul fii du ko teg te loolu mu teg mooy wane ne sénégalais États-Unis ci école yi gën a mag wëlbatiku ñëw ne moom ñeme na investir fii Sénégal di ay doomi Sénégal di ci liggéey kooku mooy Ablaye Sylla moo paree tey ànd ak Habib mi nga xamante ni mu organisé tournoi bi waaw bi muy ñëw nag délégation bu mag lay yeble délégation bi nii la tëddee. Serigne Saliou Sylla mi moo ko jiitee di ko félicité maa ngi koy tooñ léegi ne ko jot na téléphone rek moo jafe waaye xam nañ ne da toogul parce que bu say mbokk bu ku say mbokk jug te ba ñu ba mu déclaré kanta ba léegi yow toogoo ñun xam nañ ci dara ànd ki nga xam ne moo Lamine Kane ànd ak sila Sylla ànd ak Modou Thiam ànd ak Talla Diagne ànd ak Serigne Daouda Ndiaye ànd ak Serigne Cheikh Ndiaye Assane Pedro kooku moom kenn dootu ko présenté xam nañ ko bu baax a baax ànd ak ki nga xam ne nag mooy Thierno Faye ah bi ma ñëwee ma gis Thierno Faye sama xel dafa dal parce que ci presse bi la bokk di caméraman waaye dafay jéggi rôlam daal li muy jéggi rôlam mooy ñëpp la woon yar wan leen teggin kon Thierno bu ñëwee ànd ak ki nga xam ne mooy le candidat Abdoulaye Sylla ñëw ci bis bi du ñu def loolu moom itam jox ko wàccu waayam Thierno encore une fois merci beaucoup gis nañ bu am solo bi président Ecotra di candidat à borom club 50 pour cent li mu def dafa am solo. kii mooy ki nga xam ne tey xeex pour bu ñu joxee liggéey ñu jox entreprise sénégalaise yi parce que expertise bi am na ji ci ci BTP amul lu mu ciy lu mu ciy démontré parce que chantier bu ko jox liggéey na ko la mu góoree te moom sénégalais la jàngi États-Unis jàngi ci école yu mag yi wax nañ ko léegi dañ ciy déggooat xam nga tey jii nag. seize équipes yi nga xam ne tey dañ leen di habillé maillot de qualité man su ma ci maillot xam naa ko yow Habib xam nga li ma la wax mayo yi du mayo comoli mayo qualité la mayo qualité mayo culotte bas ak ballon de compétition mu ñëw accompagner ko la jeunesse du ñu def lu wax ko merci encore une fois Abdoulaye aj na baar bi mu kawe parce que lii mu def accompagner la jeunesse la jeunesse de Mbacké est très reconnaissante lii ñu la jox nii mooy club 50 pour cent de préférence nationale loolu du tubaab mooy lan mooy maanaam dafa wax ne moom liggéey bu amee nañ ko jox ñi nga xam ne mooy entreprise sénégalaise loolu la kaas loolu la fa wax ba tey ji nii mu samp sampu ndëndam ne day laaj réew mi koo xamante ni bu màggal jotee ay milliards ci sa matériel da koy indi jox ko sëñ Bamba jox ko xalif bi mu Mountakha ngir ñu bale dëkk ba mu set kooku mooy Abdoulaye Sylla leen di sant yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di tàmbali ci nuyoo bi délégation bii ma àndal ànd ci ak sama ay mag yoo xam ne nii ay wëlëre président Ablaye Sylla lañ di jiital ci nuyoo bi eh, sama grand sama mag eh, Modou Thiam di ci topp di ci toftal eh, grand Lamine Kane ak grand Cheikh maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu teewaay bi wax dëgg yàlla bi ma leen ko waxee à l' espace de 24 heures laa leen yëgal événement bi waaye lépp luñ jàppoon dañ koo bàyyi ngir accompagner ci ci bis bi teewalaale seen xarit seen wëllëre le président Ablaye Sylla di toftal ci nuyoo bi waa département Mbacké bi yëpp surtout ASC yi nekk ci département bi yëpp ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di jaajëfal di leen encourager di ci toftal aussi organisateurs yi ak initiateurs yi ñi nga xam ne ni ñoom laa àndal muy Alla ak Thierno aussi Limina Habib Habib Mbacke maa ngi lay ziar bu baax di leen jokkale nuyoo président Ablaye Sylla di leen wax ne président Ablaye Sylla mi ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax a baax ay mbiram lépp yéen la ciy jiital. parce que fii fii la fekk baax fii la defee léppam lépp loo xam ne nii yàlla suñu borom wërsëgal leen na ko ko fii la ciy jiital muy département Mbacké bi football bi nag taxawaay bi mu ci am taxawaay bu am solo taxawaay bi amaana jiitu na ñun suñu ay yitte ndaxte léegi ci kanam sax dinaa may grand bi xam naa dama ko koy ñaan mu sànni ci tuuti kàddu wax kan mooy président Abdoulaye Sylla ak ban taxawaay la amoon lu jiitu lii ci wàllum football ci département bi ndaxte ñoom ñi bokk nañ ñi fi gën ñi fi njëkk taxawal ASC fële ci Touba mu tuddoon ASC jàppoo ñu amoon ci taxawaay bu am solo moom Modou Thiam mii grand ak président Abdoulaye Sylla léegi ci kanam dinaa ko jox kàddu gi mu wax leen ci tuuti ay anecdote yoo xam ne nii di ngeen xam dëgg-dëgg kan mooy président Abdoulaye Sylla ba tax na ci yónni boobu ñu yónni dañ ciy profité ci occasion boobu waxaale ci sincèrement kan mooy président Ablaye Sylla ak lan mooy lan mooy soubassement wu candidature am parce que mi ngi suscité beaucoup de discussions ak ay ak ay coowaloo loolu day baaxoo occasion yi ñu leeral ci ne leen président si la seen doom la seen mag la seen rakk la seen lépp la ndax man amaan amaana sama xam-xam bu gàtt képp koo gis muy wàllu man yaakaar naa ni sa gox dafa tëggul ndaxte lenn rek fierté la président de la république bii ci département bi la dëkk wala ci région bi la dëkk parce que boo demee Fatick ñoom ña ngay fal seen président nga dem Kébémer fal lañ seen président nga dem euh, région de Thiès Joal far nañ seen président pour pourquoi pas ñun région de Diourbel duñ fal suñ président wala ñun dañoo bëggul dara wala ñun dañoo amul ay ambition ba tax na échéance électorale yii di ñëw dama leen di ñaan yéen suñu si sama mbokk ndaw yi ñu am ci taxawaay bu am solo parce que échéance yii bokkul ak yeneen échéance yi bii dafa ubbeeku ci ñëpp ñu war cee am taxawaay bu mat sëkk képp koo xam ne nii ki ngay àndal war nga cee am yaqin bu doy doy sëkk mu doy la ci toutes les les plan parce que loolu dafa am solo bu ñu nee président Abdoulaye Sylla lan la fi def. ñu ci bari sax dañ di laaj lan mooy programme am mais président Abdoulaye Sylla mën naa bañ a wax programme président Abdoulaye Sylla bilan la loolu moo ko différencier ak yeneen candidats daay parce que moom avant muy soxla askan wi dafa nekkoon ci askan wi di jëfal askan wi kooku bu soxlaa askan wi war naa mën a yomb président Abdoulaye Sylla bi ko yàlla xéewalalee ay wërsëg bi muy démarré tout au ñaari ambition laa amoon bi muy créé Ecotra en 2006 maanaam nan lay def ba participer ci développement wu dëkk bi créer wàllu emploi mu tàmbali ci dara doon entrepreneur bu ndaw taxawal ay mbiram ba tax na Ecotra bi ñu ko créé ak léegi bu ñuy xayma ci ña fay liggéeyee ci ay sénégalais toll na ci 2000 sénégalais yoo xam ne ni ñi ngi fay xëy di fa daan seen doole ci emploi direct 2000 sénégalais emploi indirect ñi fa nekk di fa xëy mat toll nañ ci mille sénégalais. 7000 sénégalais ñi ngi xëy foofu ci entreprise bi ñoo xam ne nii amuñu contrat ñen ay journalier lañ ñen ñi ay ci ay contrat temporaire lañ am ba tax na taxawaay boobu noonu. taxawaay boobu ku am ci dëkk bi wax dëgg yàlla yooyu war na bokk ci critères yi ñuy choisir président de la république fii ci dëkk bi ndaxte nit ki boo koy choisir ñun amaana liñ doon choisir ay président mooy ñun dañ doon ñëw di ñu vendre ay rêve di ñu wax nañu bu ñu faloo dinañ fi def lii dinañ fi def lii dinañ fi def lii di ñu vendre ay promesses mais kii nag dafay teg loo xam ne nii ñëpp mën nañ cee dut seen baaraam ba tax na kooku day day yomba présenté département non seulement département bi mais day day yomba présenté sénégalais yi kooku mooy président Ablaye Sylla en terme d' investissement Ecotra bi mu créé Ecotra ak léegi 2006 ak léegi en terme de matériel Ecotra am na lu toll ci 100 milliards ci flotte matériel kon kooku bu ñuy wax ci investissement matériel kooku normalement appel d'offre bu génn Sénégal moom moo ko war a gañe ndaxte amul entreprise BTP buy taxaw Sénégal fii toll fii Ecotra ci ci flotte matériel amul ba tax na entreprise yeneen yi bu ñu fi ñëwee étrangères yi gagné ay marché dañuy obligé di ñu demander ay sous muy ay mbir yu doy waar loolu moo waral sax ñu créer association patronat book ak ay injustice bi nga xam ne nii moo am ci milieu attribution marché public yi ñun ñu dund loolu am ay marché yoo xam ne nii dañoo soumissionné ñun marché bu buñ déggee marché dañuy dem dans les règles de l'art jënd cahier des charge bi soumissionné ñu gañe ko dans les règles de laar yenn yi bi waral coow li mooy benn marché boo xam ne nii dafa amee woon fële ca Casamance. ñu tuddee ko boucle des Kalounaay yi ñu soumissionné gagné marché bi ñu jël marché bi foqarti ko ci ñun jox ko entreprise étrangère benn entreprise chinoise ñu dem ba cour suprême def ay recours dem ba cour suprême cour suprême mooy bërëbu àttekaay bi gën a rëy ci réew mi bi mu statué surtout tous les critères nañu yéen entreprise Ecotra yéen a waroon a gagné marché bi mais ba léegi mënuñu exécuter décision boobu noonu muy injustice boo xam ne ni dal na suñu kaw loolu nag bi mu amee série d'injustices boobu noonu di dal suñu kaw bi mu amee ci la ab Abdoulaye Sylla ànd ak ay ñoñam ay entrepreneur créé association patronat boobu tuddee ko club C50 pour cent de préférence nationale. parce que ñu baree baree bare dañuy dégg mais xamuñu ndaxte nit ki tamit booy dégg boo xamul dañ laa war a leeral C bi mooy club 50 pour cent bi mooy local content maanaam code des marchés publics daf ne bépp entreprise étrangère bu ñëw Sénégal gañe fi marché. il a l'obligation de sous-traiter les 30 pour cent aux entreprises nationaux mais loolu nag dañoo gis jafejafe yoo xam ne ni mi ngi am ci réew mi di dal ci kaw entreprise nationale yi parce que mënoo nekk entrepreneur yàlla wërsëgalee la lim la wërsëgalee nga bakko ci réew mi employé ay doomu réew mi bëgguñu ci gis seen bopp ndax xëyum ndawum réew mi état bi la waroon privé bu ñëwee di la ci dimbali kooku da nga ko war a encourager ñu mel ne président Abdoulaye Sylla ñooñu ay champion nationaux la ñu waroon doon dañ leen waroon a parce que ñooñu ñu ngi jàpp ci xëyum ndaw réew mi bu ñu amoon fukk yu mel ne Abdoulaye Sylla xëyum euh, ndaw ñëpp dinañ liggéey ba tax na loolu ku ci nekk di ci doxal di ci amal ay activités yu am solo di jàppale nit ñi ñuy xëy di am lu ñu def kooku dañ laa war a jaajëfal mais waruñu di la indil ay jafe-jafe ba tax na jafe-jafe yooyu bi mu ci jógee la ànd ay entrepreneur créé association boobu tuddee ko club c'est 50 pour cent de préférence nationale 50 pour cent bi maa ngi leen di wax ne local content la maanaam loi bi moo ko prévenir ne bépp entreprise étrangère bu ñëwee Sénégal gañe fi marché dafa war a sous-traiter 30 pour cent yi entreprise nationaux yi loolu nag dafa commencé am sooxe mu am jafe-jafe moo tax ñoom entrepreneur ñu réunir créer association boobu ne bëggatuñ 30 pour cent yi léegi 50 pour cent lañ bëgg maanaam bu ko defee 50 pour cent wu xaalis bi des ci réew mi. loolu kay képp kuy sénégalais nag wax dëgg yàlla désiré de ce pays bëggal bëgg lu rafet ci dëkk bi di taxaw ne dëkk bi moo la ñor loolu kenn warula ca jiitu am naa yaakaar ba tax na loolu bi ñu ko taxawalee di ci am ay programme yu am solo di dem daale les départements dans les pôles de développement du Sénégal di fa di fa def ay panel di wax lan mooy ces cinquante pour cent di ko wax nit ñi di fa créer ay ay représentants C50 di am ay point focaux C50 dans les départements fépp fu ñu ci dem waxtaan ak ñoom ba wax na lan mooy C50 lan moo ko tax a jóg li nga ñuy wax mooy maanaam lii ngeen projet bii ngeen bëgg a teg nii dina am njëlbeen mais gëw ma mu am njeexintal gëw mu am njeexintal gi mooy projet bii pour nga def ko foog nga doon état wala nga ànd ak état. ba tax na loolu moo waral candidature président Ablaye Sylla ci élection yi loolu bi mu amee yenn yi nga xam ne nii ñoo bokk club bi ñoo réunir dem ci moom waxtaan ak moom ne ko sincèrement échéance yi nii bëgg nañ ci mbër biñ ko njëkkee waxee nouvelle bi sax daf ne man xanaa bu ma doonee président Ablaye bu ma doonee président de la république damay tox damay torox ndaxte li ma am ci ay business non seulement ci Sénégal mais sous raison bi ak monde entier loolu yëpp ma bàyyi ko fi ngeen bëgg maa doo def président de la république loolu xanaa ay jafe-jafe ngeen ma bëgg a teg mais au fur et ñuy waxtaan ak moom ñoom cadre yi di waxtaan ak moom di ko expliquer ci lañ mujjee trouver consensus. loolu moo waral candidature président Ablaye Sylla ci échéance électorale yi ñu jëm nii ba tax na lenn ci club bi li tënku li gën a tënku ci club bi mooy. problème financement yi nga xam ne nii moo soxnal entrepreneur locale yi ñu ne pour ñu dem xoj banque yi ñuy def ay prêt à taux zéro loolu il nous faut des lois au niveau de l'Assemblée nationale il nous faut des projet de loi loolu pour nga def ko il faut nga doon état wala nga bokk ci état ba tax na yenn décision yu mel noonu ñoo waral candidature président Ablaye Sylla loolu bi mu amee nag ñuy ñëw fi nga xam ne nii fii la ñu fekk baax di waxtaan ak suñu askan xam ne lépp loo xam ne ni da koy tàmbali moom fii la koy tàmbalee lépp lu mu am tamit indi na ko ci dëkk bi sama grand bi mi ngi di wax ci taxawaayam ci ci comment dirais ci màggal gi muy taxawaay bu am solo ak wàllum social boo nee président Abdoulaye Sylla ñu ne ma nga ca centre hémodialyse yi di dimbali suñu famille ci ci ci maladie insuffisance rénale kooku nag ku am qualité yooyu xamal ni am nga nit ku am personnalité la nit ku am charisme nga genre président yooyu ñun moom lañ soxla président boo xam ne nii day def te du wax day def te yàlla tax président boo xam ne dafa yërëm askanam li muy faral di wax rek nee na am réew boo fexee ba réussir ñaar yi réew ma neex nee na boo fexee ba ndaw ñi liggéey réew mi nekk en sécurité boo fexee ba jigéen ñi am xaalis réew mi neex ba tax na président Abdoulaye Sylla ci loolu la nekk maa ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp. la population de Mbacké maa ngi leen di jaajëfal di rafet lu seen taxawaay di leen ziare yéen ñëpp. Abdoulaye Sylla nag wax ci moom lu yomb la ci man te dama dund moom lu bëree bëri mu def tey jii fii man bettu ndax dafa nekk dafa njëkk nekk acteur Abdoulaye Sylla fubal na ASC jàppoo ASC bi gën a mag ci département bi moom fubaloon na fa ba mu demee ba carrière am jeex mu ne président ASC jàppoo ba mu demee ba yàlla dogal mu yor teranga mu ñëw di dimbale département bi kon def na li ko war te day nit koo xam ne ni ko Baye Sall waxee rek dafa yàgg dimbali nit ñi te solowutoon dara man mi de waa yow marché Ocass bu ma fa nekkee ñuy taw saa bu tawee ñu walee ba ko waxee xamaa woo ma ñëw mu ne ma loo soxla ma wax ko noonu ko yëkkatee jox ma 18 millions dem na ko doyul mu ne ma bàyyil su mu ñëw defaral ko maa ko dàq defal ñu koy defar lam ñuy def ëpp na 300 millions su saa bu tawee dañuy tëdd nelaw dootuñu gis benn ndox man na ko léegi te laa wutal base mu ne ma noonu lii yàllaa tax ma di ko def barab sëñ Fallou bi moo ko defar barab sëñ Sidi Mokhtar moo ko eggale lam def Masalik bari na ma ko tudd xam naa ko waaye jëluma di ko tudd te li mu ko def lépp boobu soxlawutoon réew mi nit koo xam ne ne daa yàgg a def te soxlawul dara nag su dee ba soxla suñ ko joxee yaa naa dina gën a mën a def te daana ma wax bi naan ànd xam ne yorutoon dara <clears throat> danaa wax naan damay ñaan yàlla am xaalis boo xam ne nii dinaa def Touba fi kenn deful boobu yéen mënut a yar amul 100 koy wax. di ko yàgg ñaan fu ñu romee jumaa ji moom li may ñaan yàlla am xaalis boo xam ni danaa ne Touba la fi kenn mës def te yàlla nga koy dimbali ba mu koy am mu ngi def Touba soxla su mu xam su dugg ci noppam baat ak tontu la loolu xam naa ci lu wér man xaj gis ko mooy jafe ndax ay activité am mais saa boo ko gisee soxla soo ko diis ñaata nga soxla lay wax su ñu teg baat ku mel noonu nag su soxla réew mi yaakaar naa ku ko jàppale day mel ne jàppale nga sa bopp bokkut ak ñi nga xam ne dañuy bàyyi ba dara xew ñu ñëw ci yow naan la naan def lii naan defaat duñu def dara moom daa yàgg def te soxlawul dara te su lii jàlloo nit bu ko nit di def moom kon ku ko jàppale ku ne jàppale nga sa bopp ba daal ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di ñaan daal léegi saa bu yàlla dogee yàlla dogee ñaak ci élection yi rek suñ ko jàppale daal mooy candidat bu gën ci département bi mooy gën ci Sénégal mooy gën ci ñun ñëpp kon maa ngi sant bu baax di leen gërëm. di nuyu d'abord le parrain de la journée muy Abdoulaye Sylla jaarale ko ci ki ko fi teewal muy Serigne Saliou Sylla di nuyu également toute l'assistance di nuyu les deux équipes ASC Neexle ASC euh, sant euh, Ocas képp koo xam ne ni tey wuy si nga ci wuy woote bi di nuyu di sant aussi tous les organisateurs jaarale ko ci Habib Thiam mi nga xam ne nii moom moo initié tournoi bi donc le tournoi des champions di wax euh, le parrain nous la jeunesse de Mbacké la jeunesse de Touba la jeunesse de tous le département nous ne cessons de vous remercier pour cet acte bi nga xam ne def nga ko tey ci jeunesse su Mbacké jaarale ko ci sport bi. ndax ku xool tey terrain gaar bi xool ñi fi teew ñëpp xam ne ñëpp ay ndaw lañ li leen ñor mooy sport. tey yaakaar naa vous venez de marquer un grand pas ci li nga xam ne nii mooy département de Mbacké ndax lii nga def tey yombul. un tournoi nga ñëw équiper toutes les ASC ñi nga xam ne ñoom ñoo participé ci tournoi bi. loolu dañ la ci sant di la ci gërëm di ñaan yàlla suñu borom lépp li nga xam ne mooy sa mbëbët si histoire politique ak si ay projets yi nga xam ne namm nga ko fii Sénégal suñu borom sottil ko ñun de en tout cas ñu ngi lay sant à travers Habib Thiam bi nga xam ne nii moom moo ko organisé. Ndeye Diouf laa tudd. président Abdoulaye Sylla xam nga luñ ci mën a wax. ñun ba ñu rey suñ ñetti caabi mu ànd ak seega weeru koor wa dafa ñëw. mu dimbale ñu indil ñu soble indil ñu pombiteer da damay jàppale jigéen ñi kon moom su bëggee dara jigéen ñi moom ku leen jàppale rek ñu jàppale la li muy yóotu yàlla na ko yàlla ak Serigne Fallou Mbacke jàppale te ñoo ngi ci ginnaawam. waaw waaw ñu ngi di li nga xamante ne bii defal ngeen xanaa jàppale ko rek su ñëwee Mbàkke gi waa Mbàkke na ko jàppale ndax Mbàkke ku leen bëgg ñu bëgg la ñun ay jigéen la ñu fas teew yor ay mbootaay ku ñu jàppale rek ñu jàppale la. waaw xam naa ko dafa seega xam nga seega moo fa ñëwoon moo àndoon ak seega mu may ca ga ay ay may ñu pombiteer may ñu ay soble xam man du ma fàtte boobu dañoo yoroon suñu ñetti caabi mu jàppale ko jigéen ñi te jigéen ñi ko te booba bëggutoon lii kon nag ndegam dafa dem ba bëgg li dinañ ko jàppale. di andi ay kàddu yoo xam ne rek ay kàddu yónent la suñu kilifa suñu jëw jëwni suñu sëriñ yónni ñu ko nga xam ne lii tey li ci ëpp nag moom la su demee nii rek lépp moom la yàlla dogal mu jaare ci nun wàcc si Habib Thiam ak euh, maam Thierno Mbengue muy sant Habib it moom it bu baax a baax ci euh, nangul gi mu ko nangul waaye nag di sant surtout président Abdoulaye Sylla parce que it euh, li ñëpp wax rek Abdoulaye Sylla ku fonk jeunesse bi la mais it nag ku fonk li mu doon la ku fonk fi mu bokk la surtout diine islam ji parce que nag seex euh, ni ñuy wax ci kàddoom nii kenn xamu ko ci yaakaar naa sport mais teewul lii si moom la jóge ne jàpp naa ne it euh, dayo bi mu toll xañ na permettre ko mu toog fii ci tribune bi wala ñu di ko filmer fii ci kii bi muy wax. kenn ku nekk fa nga taxaw na fa taxaw waaye nag lépp nag ci moom la jóge parce que moo ci wax ak président Abdoulaye euh, mu ne ko ne xool leen nu ngeen ko bëggee rek ñu defee ko noonu si la ma waat wax ma ko ne ma jokkoo na ma ak Habib xalaat leen ci lu ngeen ko bëggee rek ngeen defee ko noonu. suñ jógee Touba ñëw ba fii. di waxtaan ak waa Mbacke ñu ñuy dégg di ñu dimbali ci yu mel nii waa Mbacke ñoo baax waa département bépp a baax euh, tey nag lii nga xam ni moom la président Ablaye Sylla def jaare ko ci sëriñ Saliou mii nga xam ni mooy représentant Ablaye Sylla région Diourbel moom moo fi nekk ci région bi Baye Sall pour ñëpp xam ko euh, jaare ko ci moom mu jaar si ñun man ak Alaña ñëw ci Habib Thiam mi nga xam ni at mu ne mu jàppale jeunesse su département bi lu mel nii tey président Ablaye Sylla participer ci participation bu am solo bi jël match bi pare na ko équipe seize équipe yëpp mu jox leen jeu de ñoo ngi koy remercier bu baax a baax a baax a baax di wax rek euh, jeunesse bi nan leen yeewu ndax ñun bu ñuy wax duñ wax ngir suñu intérêt dañuy wax ngir intérêt département bépp euh, fii ñu toll nii nañ xool kan mooy Ablaye Sylla xool ay qualité am xool Ablaye Sylla lan lay def ci réew mi waxuma département bi ndax su ma nee département bi yaatuwut mais Ablaye Sylla réew mépp ak lim fiy def ci social ndax boo demee Dakar centre dialyse ba mu fay tabax moo ëpp ci Afrique pour nit ñi xam ko kon Ablaye Sylla mi ngi dox ci social bu baax a baax a baax ci biir réew mi te nit ñi xamuñu ko jeunesse nag dañoo war a yeewu xool ku ne Ablaye Sylla ñu jox réew mi 2024 incha allah maa ngi félicité nag bu baax a baax di remercier responsable yi nga xam ne ñi ngi ci département bi di jàppale Ablaye la responsable yi nekk ci département bi rawatina biir Mbàkke gi am na fi ay responsable yoo xam ne si ni ñi ngi ci biir match bi tey ñenn ñi ngi arbitré ñenn ñi ngi seetaan ñenn ñi ngi fubal doon ay responsable yoo xam ne toujours ci Ablaye Sylla la ñuy xëy di ko jàppale ci dëkk bi maa ngi leen di félicité bu baax a baax a baax a xam ni temps bi moo gàtt. xaju fi waaye kon kenn ku ne dinañ jaar ci sa tur ñoo ngi félicité bu baax abib ci initiative bi nga xam ne amal na ko lii lépp nag sport a ko waral ndax biñ jógee Kaffrine seetaan match fierté ba ñëw man Habib Alla ak Abdou Seck Seck ci lañ taxawal lii lépp jaare ko ci Habib mii kon lépp sport la nañuy bay violence bi tey delloo lépp ci sport xam ni Touba ak Mbacké lépp benn département la man sama dantee su réeree mbàkke laa koy wëree doomu mbàkket su dante mi réeree mbàkke la koy wëree kon ñun ñoo bokk ndey bokk bàyyi nañ bàyyi violence bi te jëmal seetlu jëmale département bi kanam ñu def ko wasalaam